asalaamaaleykum Mik TV bi maa ngi leen di nuyu ci yéen di yi nga xamante ni macha allah ñu ngi partout dans le monde ñu seetaan di ñu bëggee ñu nekk nuyu leen ziar leen di woon ñaa fashion macha allah xale boobu nga xam ne ni ciseau moo dee ci loxom di nuyu na képp ku ñuy bëggee di nuyu na sama naataango bi ma toogal ami macha allah ah jonguma jaa ngi noonu di la nuyu di la dalal ci. émission jigéen la jóge waaw salaamaaleykum salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna ñu ngi leen di ziar di leen jógee di ci yéen ay ñaan te di leen ñaanal di nuyu waa Mik TV yëpp di leen wax ne ñoo fi dellu si waat rek macha allah di waxtaan ak yéen ci jigéen na jonge di leen ci indil ay bagages yu bari yéen a ma gën a xam ni mu demee di ziar sama waajuru jigéen di sàkku ci moom ay ñaan te di ko ñaanal mu yàgg ci waa ami ginnaaw bi ñu la bàyyee nga nuyoo nag euh, macha allah nuyoo bi neex na tey nag euh, jigéen ma jonge indiwaat leneen loo xamante ni lumbewaat na àdduna lumbee jamono muy kilifa gi nga xamante ni macha allah moo xam kilifa aadala moo xam koo xamante ni macha allah seef nga àddina bi xam nañ la ràññee nañ la yàlla boole ko soxna mu sëy ak moom ay di ay at abandonné ko joxatu ko dund joxatu ko ay ba pare teg ci tamit ni di ko ñaan baat amit muy loo xamante ni macha allah xale bi mu ngi koy dund ay waa këram di ko metti lu te mënuñ ci dara dara parce que dañu ni mbéjum kanam borom a koy fajal boppam ba tax na nag jaaxle moo tax mu ñëw fii ci ñun waxtaan ak ñun pour trouver solution ma lay laaj loolu loo ci xam amee. waaw soxna Ndeye bu ñuy wax rek dañ naan jamono métti jamono li ko tax a metti mooy li xew ci réew mi boo ko dee waxtaanee du jeex damaa xam ne nga takk jigéen takk ko ci yoonu siraatal mustaqim ñu may la ko mu bàyyi ay waajuram ñëw sëy si la ngeen nekk 10 ans 15 ans 14 ans bés ñëw nga abandonné ko wàcc ko dem won ko ginnaaw ndax lan ndax jigéen comme moom metti na jigéen ñi li ñuy dund ci biir kër yi metti na jigéen ñi li ñuy dund ci seen foyer yi metti na te waxuñu ko lu ëpp nag tur xool du ëm bañ koy bët ñu leen man de li ma leen di xelal mooy ku nekk am nga sa diine imaam yaa ngi fi ustaas yaa ngi fi ñaan yaa ngi fi lépp am na fi bu la tollee noonu nga toog xaar ko ne ko dama lay ñaan baat mu ne duma la may baat nga dem seeti ji imam bi la gën a jege wala ustaas bi la gën a jege nga waxtaan ceeg moom lu mu la ci xelal nga jël xam ne njariñ la man dama yaakaar ni est-ce que dañuy xemeen jigéen ñi parce que Amina jigéen bu fekkee danga ko takk ci farata yàlla su nag ma mat andi ko sa biir kër dema dema dema dem ba diir nga takk keneen indi ko takk keneen indi ko abandonné ko nga indi indi woon mu juróo la njaboot ndax xemmeem la wala lan moo ne ci biir ko war mu am وعندي لول دوما كنت دخي من بين انسان هم قالوا تاخ بس كينغ سيل ديزا 15 14 خيم ام ام نين جور نياتا دوم جيجينو تاي نجي ما اك ني كو ساني واخ ني ديتورني غور ديري واي امي كوم 10 15 ديباب دو واخ مي واخ ني نون مي كي داي خالي مو تاكو كو تي خالي ام ام موم جابور بو سيو خي ابانتوني دم تاك كينين بوك لا كينغ سيل ديزا تي خيم te ñu koy def ñëpp ay sëriñ si lay doon na ma yàlla bari ak nañ ko sañ wax. Mm. ñooy ñooy takk jigéen xemmeem ko amam moom njaboot xooliwaat seen moroom waaw loolu moom bëri mm. yow mii jigéen ki nga gis xamoo fu mu bàyyi koo balaa ngaa dugg ci moom xool ko waaye fekk nit mu toog rek sëriñ la xamoo fu mu bàyyi nga ñëw dugg ci moom waaw loo ci am nag. waaye est-ce que parents yi tamit. ñoom ñoo toogatul place parent wala ñoo toogatul place waajur ñi ngi ci toog ñenn ñi ñu ngi ci toog waaye ñeneen ñi dañoo wàcc seen waar ñi wàcc seen yoon nag laa bëgg nga teg leen ci yoon waaye ñi wàcc seen yoon nag li ma leen di xamal mooy doom nawle la te li ngay def ci sa doom nag ko xool bu baax ndax ëllëg du añ du reer du waaye lu mat a sédd sa doom booy def ci moom defal ci moom lu baax jël sa doom maye ko may ko ku mu xamul mu jël ko téye ko ba heure bu ko neex mu dem bàyyi ko abandonné ko bàyyi ko njaboot gu sew amul sens mhm. jamono ji dafa metti métit bi nag nit ñi topp nañ ci ba jaay seen ngor waaw est-ce que tamit ami dund gi méttiwul <laughs> xale yi sonoñ leen leen xatal nañ leen ci biir këriñ leen leen saraxe saraxe moom duyu parce que booy xool dund gi euh, situation yi nga xam ne xale yi ñu ngi koy dund ci biir néegu sëy yi te di ko jooy seeni parents te duñ ci taxaw lan moo war waral lool euh, li ñuy jooy seeni parents yi te duñ ci taxaw seeni parents peut-être amul mais nday boo takkee sa sër ba mu dëgër wala nga takk sa tubéy ba mu dëgër boo dee góor boo liggéey jee loo liggéey yàlla may na ko xam nga yàlla kan la àndal ku toog ne yàcc na ya sar waaye kii xëy di wuti saa yu xëyee suñu borom am na lu mu ko wërsëgee. kon bu ma la déggee mooy nañ takk ndigg yi jigéen ñi góor ñi takk nañ takk sër nañ koy astafurlaa nañ takk ndigg yi jigéen ñi mhm. góor ñi nañ takk séentu parce que nag liggéey li nga bëgg liggéey la koy may mais du tàllal loxo dëgg la ba tax na waajur yi tamit ñoom ñoo war a xoolaat fi ñuy teg seen doom yi waajur ñoo war a xoolaat ñi leen di ñaan si waajur ñoo war a xam ni alal du sëy taar du sëy diine ak ngor ak dëggu sëy ak ngor ak dëggu mooy sëy parce que euh, sëy du benn fan du ñaari fan du ñetti fan benn instant nit a ngi abandonné jigéen dem jigéen tax mu abandonné ko jigéen di tax mu euh, nga abandonné ko moo ne jigéen nga fa bàyyi dem fekk ji jigéen mais léegi mystique bi dafa bari ci Sénégal parce que nit dalay fek gis la ngay and ak sa jëkkeur manam sa borom kër mhm. nga nekk ci jamm mhm. mu gis xamul lan ngeen dund ci biir kër gi bari na mu ñew ne fokkat sa borom kër yóbbu ko mhm. da daatle la ak moom da ko ak sa njabot de daatle ko ak say mbokk lu mu wax kenn duko ko dégg yow li nga wax rek loolu am jigeen nañ fi di tëkku nit ne ko ma tax sa jëkkeur bayila te bo bu dee man rek doto ko gis mëno gis sëriñ bu ko dindi ci àddina te loolu du yoon. loolu du yoon. waaye li may wax naan tey neex na waaye suba lu mat a sóoraale la. <laughs> waaw ëllëg nag waaw moom du añ du reer du ndékki comme ni ma ko waxee waaye lu mat a sedd la ndax foofu buñ fa yeggee ku tedd ki rek a fay nekk maanaam suñu borom. maanaam est góor ñi tamit ñoom it góor ñoo amatul fullay mat li ñu doon ba nga mën a gérer seeni jabar ba ñu mën ba ñu mën a yem ba tolloo ba ku ci nekk kenn ku ci nekk sa wàccuwaay rek nga matal ko. waaw du góor ñi ñoo wàcc seen yoon ñoom it. benn instant dama naan góor ñi wàcc nañ du wàccuñu seen yoon benn instant dama naan dañuy wàcc seen yoon parce que boo ragal péete day xañe wër boo yoree say soxna da nga lay yemale ñun ñëpp ñu yem ci benn point lii ma bëgg lii laay def lii ma bëgg moom la ñëpp di def ñëpp defal na ko mais jigéen ñi dañoo mystique ak ñi ñu ko sañ wax. da ngay gis fekk nday di sëy ak borom këram nga ñëw xamoo lu nday di suturloo wala ami di sëy ak borom këram xamoo lan la ñuy dund lan la ñuy suturloo nga ñëw dem ci sëriñ ba dëddaat leen ma leen nangamal ma leen yàq seen diggante amul sens. est que tamit amit loolu moo tax ñu dem ba ci biir waa ji liggéey ba toj woon la ginnaaw nga naan daf maa abandonné est que tamit du. du loolu moo waral. Mm-hmm. wan ginnaaw yi bari loolu ci jamono fi tool toll. waaw loolu nag waral na ko am na ci. am na ci ñoo xamante ni bu demee ba liggéey toj. Mm-hmm. lu toj yàq lu bari loo tabaxoon rek lu toj da koy yàq. waaw parce que gàllaañ nag moom wax nga ne euh, gudd fa. Mm-hmm. gàllaañ moom. surtout buy yàq àpp la. amul aw fan lu gudd. loo ci def nag na nga ko xam na nga séddu sa tey séddu ndax ëllëg moom suñu borom rek a fay nekk. te looy séq boo ja fexeel ba boo jàkkaarloog sa nawle ëllëg yomal xiyaam. est-ce que tamit tamit. fexeel bul sëgg xam nga li ñu naan affaire bi ñaari côté lay doon léeg-léeg gàllaaj la léeg-léeg tamit du gàllaaj jigéen ji nga xam bëgg na sayta yàlla tax yàlla taseel la ko góor googu ah mu dem ba ci biir woon ko ginnaaw boobu it metti na. lan ngay wax jigéen ñi nga xamante ni bu ñu gis ana yow ana man takk leen lan ngay wax góor ñi nga xamante ni bu ñu toroxal jigéen tas yaakaaram. jigéen ñi ana man ana yow. sakkan sëy ba sax amaanaa mën na yàgg bu fekkee suñ borom ko bind parce que sëy yàlla mi ngi koy takkee ci aras waaye euh, sëyu léegi yii li moo waxoon rek laay waxaat xale yi duñ ko seet te dañ koy seet wërsëg suñu borom yi moo koy boole pare saa nga sëy boo xam ne seeni biddéew àndul ngeen sëy tuuti sëy bi tas dafay am dëgg dafay am fay am ami parce que lolo tax jamono yàqu na jamono metti na kenn xamatu foo jëm ndax jamono ni mu mu tëddee la ak fi mu toge la li ñu cërewaloo won nak ci waxtu lu jeex na ami ma bàyyi la nga taggo rek waaw ma ngi santaat yalla bu baax di julli ci yonente bi alayhi salatu wassalam di sant sama serigne bi Cheikh Mouhamed Fadal di ñaan yalla ci weeru Kazu Rajab bi yalla suñu borom defal ñu e di ci di nuyu sama borom kër moom ma bàyyi ma ñew fi ma koy sant ci ko ko ñaanal fa nu gudd ànd waaye di nuyu sama yaay Awa Diop mm-hmm. jëgg ma martaala maa ngi lay ziar sama goro ba ma bàyyi sa kër mm-hmm. sama njaboot yëpp sama njëkkee yeeg sama njëkkee caggo yi waaye di nuyu sama yaay seen seen di ko ñaanal suñu borom guddal fanam yàggal taxawaayam di nuyu sama doom jete France déccee borom mm-hmm. maa ngi lay ziar bu baax waaw dinaa buñ la bàyyee nga tàggoo ba pare man maa ngi nuyu sama alaaji macha allah Alioune Badara Sakho di nuyu nag jeune tailleur bi nga xamante ni moo ma génn fii waaw di daggat saison dagg dee ci loxoom maa ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu DG macha allah ci ni ñuy taxawoo diñ jàppale di leen ñaanal jàmm di leen joxaat dig daje ba beneen yoon ci jigéen na jonge